والصلاة والسلام على رسول الله بوكي نبوك سند برام سبحانه وتعالى شعرنا من بن بود من ورا جامو بود المام نوعي بالو أق نب تدلين بال أق تينيان بور بن سبحانه وتعالى مبوك نيجي جن نب بوكي سنو خد بتي من جم تليان تبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الرحمة والفرقة عذاب yonent bi ñu ne woon mbooloo yërmande la waaye teqalikoo ko goo gis rek mbugal la mbokk yi xam ngeen ne bokk na ci li gën a màgg ci lu ñu yàlla buur bi subhanahu wa di digal ñun jullit yi mooy ñu bennoo tey jàppoo cay dimbalante ca bañ di teqalikoo mooy base fondamentale bi nga xam ne mooy dëgëral sunu dund moy deug rek sunu nekkin ci aduna waye moy taxit sunu njabot mana bok bokk doon benn xeet yi ummatul islam bépp ben baat teunk len muy baatub la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon warna ci julli bu ci nek fu mu nek a nekk ca di jullit mu jema ben nok morom moroomu jullitam te bañ di tekkaliko ak ñom kuréel bu mën a doon ci kuréel yi jullit yi kuréel yépp war na ñoo mën a doon bennoo ca bañ di teqalikoo wuute ay tur wala ay déggin warta tax jullit yi teqalikoo bay néew doole moo tax suñu wax ne maa ngi lañuy di dénk ngeen jàpp ci buumu yàlla gi ca bañ di teqalikoo waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu suñu borom nee na yéen jullit yépp maa ngi leen di dénk na ngeen jàpp ci buumug suñu borom gi ca bañ a teqalikoo na leen benn baatit boole muy la ilaha illa allah muhammad rasulullahi sallallahu taala alihi wa sallam mooy jumla boo xam ne doo ci gis am nuquta ab tomb ab tomb doo ko gis doo ko ci gis muy laa ilaha illa allah muhammad rasulullahi sallallahu alihi wa sallam doo ci gis ab tomb noonee mu ñàkk am na nuquta bu ci nekk rek kon am na am na lu muy sémbali ci jullit yi mooy jullit yépp leen war a boole mooy baat boobu moo tax yonte bi saa sala wax ne ab jullit ak moroomum jullitam dafa war a mel ne ab tabax tabax laata ngay am néeg biri ni jàppaloo laata ngay am juma jii nga dugg nii tey jii di fi julli juma laata nga ci mën a julli mu lay keral ay birig yu taqaloo la la ka taqale nag ban doon benn ñoom ñëpp mu mën a jariñ société bi jullit yépp loolu la war a mel kon julli dafa war a mel ne ab miir nga xam ne bii day jàpp bii jàpp bii jàpp yonente bi del waxaan ne jullit yépp dana war a mel ne aw yaram yaram cër bu ci metti rek yaram yépp yëg mettit wi bu bëñ méttee mboolam yaram yépp yëg mettit wi bu tànk méttee mboolam yaram yépp yëg mettit wi bu bët méttee yaram yépp yëg ko ba juróom-ñaari cër yi mat kon jullit yi noonu lañu war a mel doona war a jàppaloo doon benn ca bañ a teqalikoo suñ ko defee rek loolu mooy ñu indil résultat bi ñu bëgg bokk yi buñ xoolee yonent bi salallahu taala alayhi wa sallam bi mu gàddayee màkka ñëw madina boole gam doon boole mbokk yi yam doon mbokkoog diggante muhaajir ak ansar ya mbokkoogu ko ëpp solo amut te gis na ne ban leen boolee ñoom la gën a dëgëral seenu bokkoo mooy ku am ñaari soxna wacc sa benn soxna iddaam jeex nga may sa moroomu saxaaba ku am ñaari bitig génn benn bitig ba may sa moroomu saxaaba ku am ñaari kër génn sa benn kër may sa moroomu saxaaba ñu dem ba bokkoo di tuddantey doom di takkante ci seeni biir loolu moo di ak bokkoo ca ñoom la leen yonent bi sansam boole loon boole woon loole lañ doon dund ba jamonoy tey jii ñu gis na fii ci jamono toll am na ci benn réew ci réewu Afrique yi ñu nekk fan yii ngeen dégg ci xibaar yi ña ngay sonnal nit yu ñuul ya muy Tunis réew moo xam ne nangam mi jul nangam mi doomi aadama yoo xam ne borom der bu ñuul leen ñu xeeb leen di leen sonnal ngir seen der bu xeex boobu bokk yi ndax loolu jaada na jullit ak moroomu jullit ñuy defante loolu ndax loolu ak ak jullit la ñi réew moo xam ne ni watane ay jullit leen seeni moroomu jullit ñu wutee aw xeet wala wutee ab der tex ñu bëgg ne nit ñu ñuul yi ñoo indi crime bi seen réew mi wala ñooy dañ buñ fi baree dañuy yàq seen réew mi ba ñu di leen ni bund xatal ak a ci ñoo xam dañuy woote ne ay julli leen wa jaalna baynakum suuban wa qabaila li taaarafu yàlla gën a xam ñépp de moo bind ñii ñuul bind ñii weex bind ñii xonq bind ñii nangam nangam wa jaalna baynakum suuban wa qabaila li taaarafu ndax foofu la mbir mi nekk déedéet inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla nee na ki ki gën a ragal ci yéen ki gën ci yéen ki gën a tedd ci yéen mooy ki leen gën a ragal yàlla kon nekkul ci kii der bu ñuul la wala der bu weex la wala der bu nàngam la kon ñoom waa réew moomu loolu ñuy def nit ñuul ñi war nañoo xoolaat ne du diine te sëñ nee na woon euh, ñaawub der maanaam nit kii am der bu ñuul taxut mu ñaawub dégg fa laysa yujabu ثواد الجسم سفاهة الفتى وسوء الفهم نانا دير بو نيول تاخو نيت كي دون اب دف دير بو نيول تاخو نيت كي مانام باغا ام خم خم ولا مو باغا ام خلات ولا يو مل نونو كون لان مو في جار ام ريو لم دي سونال نيغا خا اي دير بو نيول لن نيوم بو ديمي با نيغا خا اي دير بو ويخ لن دي جي نيو خيب دي خيب دير بو نيول بي bari na lu taxawal diina ci ci jamono ji wala ci afrique borom der bu ñuul taxawal borom der bu weex tax taxawul ko donte diine l'islam ci der bu weex bi la jugge waye li taxawal diine l'islam ci afrique du borom der bu weex borom der bu la borom der bu ñuul la kon li xew ci sun mbokk yoyu ñuy dem bay xeeb ñi nga xamne ay der bu ñuul leen di leen jàpp na ay dëkk buñ bari crime fay bari ak di leen bundu xatal nel wëlbatiku xoolaat seen bopp sun boroom nee na aw gën nekkul ci askan nekkul ci der nekkum leen ci lenn ci lan la nekk ci ragal yàlla laa fadala li arabiyin wala ajamiyin illa bi taqwa arab bi gën wolof bi wolof bi gënul arab bi lu dul ci ragal yàlla noonu yonent bi saa sama nag mbokkale woon muhaajiri ak ansaar yi jullit yépp foofu lañ war a féete mooy tax sunu julit dëgër mooy tax ak teqali koo bañ ñoo dal moo tax suñu borom nee na wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaatun bayinaat ulaika lum asaabun adim muy wa waa bani israil teqalikoo gan teqalikoo ak la leen suñu borom digoon waaye seenu teqalikoo tax mu jógal leen ak mbugal loole ab buñ ca delluwaat ñu ñun jullit yi te boo dee seet jullit yi ci bari ñi ngi delluwaat ci loolu te gis ngeen ginnaaw nga dootu badar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu dénkaane woon jaam yi mooy na ngeen bennoo tey defar diggante yu yàqu yi tey defar diggante yu yàqu yi fa taqullah waslihu zaata baynikum diggante sëy bu yàqu ñu xam ko des koo war a defari mbokk gu yàqu ñaka xam dañ koo war a defari jullit ak morootam ak jullitam bu yàqoo ca la leen yàq du diine ña ko xam dañ moo war a jóg dem defaree ko waaye jamono ñuy tollu fu fu taal nekk ñu xam rek da ngay gis ku ñëw gën a sànni matam mu gën a tàkk gën a sànni matam mu gën a tàkk boobu baa kañ lay defar lu am bu dee problème mu sëy la da ngay gis ku ñëw war a defaree sëy ba ba noppi sam sànni ca matt mu gën a tàkk bu dee jullit yu dëjoo la da ngay gis koo xam ne dafa war a ñëw boole leen waaye da cee sànni matt mu tàkk loolu nag fan la fan la fan la fan la àdduna bi jëmati kon war nañ jullit yi war na ñoo mën a wëlbatiku xool seen bopp te gis nañ ci jamono yi kuréel yu bari xam kureli diine yi leen moo xam kuréeli àdduna bi leen wala ay kuréeli daayira leen wala ay kuréeli xasaayit leen wala ab daayira la ak yu mel noonu yu ci bare bare la leen ñuy teqale intérêt la mais du du yàlla du sëriñ bi wala kii ne ab tijaan laa kii ne ab murit laa kii ne ab laayeen laa kii ne ab xaadir laa am lu leen ñuy teqale loo xam ne du du baatub laa ilaa ilaa bi la intérêt yu ne ci seen biir lay doon rek tiijaan beeg xaadir beeg laayin beeg murid beeg zaataliya beeg nax sa bann bi ñëpp bu leen benn baat boole muy laa ilaha illallah kenn wërta xas sa morom kenn wërta toog di jëw sa morom ñoom ñëpp benn lan war a doon mais fi mu toll jamono ji ñu toll problème boobu dafa bari ci àdduna bi ca nag l'islam léeg-léeg ñu tooñ l'islam laal ko doo dégg kenn jóg waye kun la sab tariqa nga ne li tax muy wax yoonu murid nangam li tax muy wax yoonu tidiane wi nangam li tax muy wax yoonu nangam nangam nangam nangam mais diine l'islam ji boole tidiane ak murid qadir li tax duñ dukk diko defandar bokay fofu la mbir mi nek fofu la mbir mi nek bala nga defandar ab tariqa da ngay defandar diine l'islam ji tax nga don tariqa ken doonu ken munta nek ab tidiane ci doon nek ab julit ken munta nek am murid ci doon nek ab julit ken munta nek ab qadir ci doon nek ab julit la jitu nak ngay nek ab murid wala tidiane ab qadir muy l'islam joju lolé lañ wër juk toujours sa suné la koy sam ak diko défendre ñu diko def mais fim tollu ni da ngay dégg ñu togn diiné l'islam kenn du wax ben wa juga fee na yoonu murid nangam nga gis suba bo xëyee suba kenn ku ne def ab vidéo pourquoi muy wax yoon wi nangam ak nangam pourquoi muy wax señ diiw nangam ak nangam pourquoi muy wax nangam ak nangam bu dee tijaan bi nonu bu dee laayeen bi nonu bu dee bi nonu te diiné l'islam di len bolé duñ juk mukk diko kassal kon bu baba ana ana ala wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu tafarruq am na ay tariqa moo xam bu ci mën a doon yoon yu jëm ci yàlla la waaye wër ta teqale jullit beeg moromu jullitam yoon yu jëm ci yàlla rek la kenn ku ci nekk ñun ñëpp Dakar lañ bëgg dem yoon yi ngay jaar ba dem dakaar bari na kenn ku nekk jaar ci yoon àgg Dakar rek nga bëgg tariqa yi mooy loolu yoon yi àggale nit ki ci yàlla la kon bu mu ci mën a doon bu mu tax jullit yi teqali ko te jullit yi bari nag la leen ñu teqale jamono ji intérêt personnel la waaye yàlla sax taxatu bu dee ci wàllu tariqa kadalik sama sëriñ lañ wax nangam sama sëriñ lañ def nangam li tax ñu wax sama seriñ nangam da ngay gis sax ñoo xam ne ñoo bokk benn askan wi bokk benn penc yi bokk benn nangam ñuy am xuloo ŋaayoo ci teqalikoo ci loo xam ne kee ke danoo wax sëriñam lee te ñoom mook sëriñ bi ñoo bokk askan wi kee war ba di ko nag lu tax ngay wax sëriñ bi ne nangam ak nangam ak nangam yooyu donc moo fi am mu mel ne kon kuréel yi xew ci jamono jii teqale gi leen ñuy te teqale yàlla taxut yonent bi taxut seen bakkan tax ak di ak intérêt personnel bi ñu dund ci kaw suuf man kër sangam laay siyaare kee kër sàngam lay siyaare kee kër sàngam lay siyaare ñoo ñëpp ñoo bokk benn naanukaay bu dee ci yoon yi sëñ tubaay naanukaay bi bu dee ci tijaani alaaj malik mooy naanukaay waaw lan moo waral kon may siyaare fee di siyaare fee ñu mën a teqalikoo ci biir ci ay kaddu ak yu mel mel ca benn naanukaay bi di benn loolu moo am ci suñu réew mi moo am ci suñu yoon yi ci yoon yi ngay gis yëpp yooyu ci am kon nañ delleesuwaat xel yi ca xam ne waatasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqu moo waral jullit yi néew doole moo waral jullit yi li ñuy bari bari ci àdduna bi amuñu doole da ngay gis réew yoo xam ne ay julli leen ci alamul islam bi moo xam arabu saudi la moo xam égypte la moo xam yeneen julit yee ànd ak yee julit yi ànd ak yee julit yi ànd ak yee réew mi bañ réew mi réew mi bañ réew mi léegi fan la ni man fan la ni boole suñ baat ba mën a doon ba mën a taxawal li ñu bëgg taxawal dëgg-dëgg ci kaw suuf doo am kon nan delloo sul xel ñun julit yi ca li xew ci jamono bi gis nan ko da nga koy gis ci daayira yi da nga gis ci daayira yi ñoo xam ne intrapersonnel donc buñ leen joxutu poste sub daayira wala joxuñu leen ñuy takk bu laxasaay di jaaxar jaaxar ak lu mën a doon ñu gedd daayira ba dootuñu ñëwati daayira ba wala buñ demee ba gisuñu seen bopp ci biir daayira bi bàyyi daayira bi xanaa yàlla taxul ak ak tax ngay def yow fexeel di ñëw rek boo amee joxe boo amul nga xam ne amoo dem na ba ci kuréel yi kuréel yi dangay ngay gis naan kuréel sangam nangam kuréel sangam nangam bari am problème seen jafe ba ci kuréel yi daayira yeeg kuréelu xaside yeeg kuréel yu mel nonu yu ci bari bu fekke ne yàlla tax waru ñom ay problème ala wala nangam nangam kon bokki yi delle suwar sun xel ñun jullit yi ca xam ne lenn ñu boole muy la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam ba boobu ñu boole nak nan ko sam ci suñ ngor sam ko ci seen diine diko doxwale budul lolu dul loolu ci ay problème dong ci lañu dëkk motax yonent suñu wax ne na ngeen ragal yàlla cay defar diggante yi te diggante yi ma lay wax yu ci bare bari bari na ci yoo xam ne yàqu na te dara yàqu lu interpersonnel donc wala àdduna kon nañuy defar diggante yu yàq yi ci bu mën a yàqoo nag say yéeg daayira yéeg dégg nga tariqa yeeg yu mu ci man a doon ba ci politique si politique bi rek politique bii xew jamono teqale na baay ak doom teqale na mag ak rakk dégg na jëkkër ak ak ak ak soxnaam yépp teqale na leen kii far fii kii far fii coow na gurru dara jaru ko fi dara bu mu tax nit ki jaay ngorom wala mu jaay diineem rawatina àdduna bi nga xam ne léeg nga léeg nga juga fi bàyyi ko fi loo fi loo lu mu mën a doon ci adduna rek bisa ngi ñëw nga daa di faatu nga bàyyi ko fi daraja ju la fi yàlla jox xam-xam ju la fi yàlla jox wërsëg gu la fi yàlla jox kattan gu la fi yàlla jox bisa ngi ñëw nga ne ko fi ñukk ñu gasoom pax ba am ko suur la wan la gannaaw bu nga koko du fàttaliku nag loolu neex defal bokk yi na ci asaar yi nga xam ne léeg-léegi mooy am ca dara ko waral xam nga li bon khilaf waye ikhtilaf tagan na ñun ñëpp ma sa wun yàlla bind ñu ñu mu ñoom am xel ñun ñëpp ma sa wun sun borom bind ñu ñu ñu gattando wala ñu njoolandoo kenn am na ñun suñu borom binde kon wuté ay déggin wota tax tekkale ko wala am suñ biir ñun jullit wuté aw doxalin timit wota tax tekkale ko suñ am suñ biir ñun ñun jullit wuté aw doxalin nit wota tax tekkale ko am suñ biir ñun jullit yi te loolu dong mo fi am nak te loolu moo ñu waral nag ñun jullit doole jan war a am daanaka amatuñ ko suñu borom nee na wala tanaaza'u fa tafsalu wa tadhaba rihakum wasbiru inna laa maa sabirin bu leen xëccoo ne saa yi ko defee rek exact day daal dikk ci yéen dootu leen amati kàttan moo waral aljamaatu rahmatun wal firqatu wal firqatu adab mbooloo moo gis doole la waaye teqali ko goo gis beru mbugal dong lay jural doomu adama bi mbokk yi kon nan leen jéem a bennoo ca jéem a doon benn ca def ne arab ba dem defoon ba muy waaj a génn àdduna woo ak njabootam wut benn takk takku say ne leen damm leen damm leen ko ñu kër kër yi ba sonn mënuñoo damm say wa mu teqale say wa kenn ku nekk mu jox la matt na la dammal nga daal di damm say wa mu ne li feeg yéen a ngi booloo comme ni say yi booloo seeni noon duñ leen mënal dara waaye lu feeg yéen a ngi teqalikoo comme nii te sawi teqalikoo fu leen seen noon jekkoo mënal leen dara ay jullit noonu lan war a mel ñu bokk baay noonu lan war a mel ñu bokk maam noonu lan war a mel bu leen àdduna teqale bu leen bu leen dara intérêt àdduna bi teqale la leen i boole na doon yàlla ak sëriñ bi waaye ñu bari famille bu fami yu baree bari koo nan ngir àdduna rek ñam man dimbalee tun ña mënut ña ca ña ngay seetaan ña nga xam ne mënuñu kenn ku ci nekk jàpp nga ne yow sa fulay boppaa la jox li nga am Sëñ Abdou Khadir nee na jàmbaar amut ku yàlla dimbalee moo am képp kuy xam loolu fu la yàlla boole la da fa jéem a def dara kon famille yu bari taqalikoo nan ca dara taqaliku loon lu dul ñettane ca man mën a dimbale dimbalewul kan kon ku man ne ci famille wala askan wu doon mën a dimbale ña fa nekk ngir yàlla dimbali leen ci yàlla tax dimbali leen ci yàlla tax léegi-léegi nag da ngay gis koo xam ne da nga ko war a mën a jënd ordonnance su dix mille wala nga ordonnance bu cinq wala nangam nangam wala mu tawat na ci dem hôpital ak guddeeg bëccëg bis ñëw ñu na fatuna nga dem jëndiw nak jëndu saaku ciép de nga lu bass dik dikk mako wara ko dara amuko ci ab yool fam safe woon defoo ko fa loolu leen ñu bayiko xel bokk yi lan la ko lan la arab baxoon ta abbal asiyu isa majtamaana takassura way saf tafar way saf taraxna takassarat ahada mu ne li fek say waa daje du ngeen ko mën dam waye bu ngeen ko tekkale ben ben rek da ngeen ko da ngeen ko da ngeen ko dagg yaronte bi sallallahu sans salama daana may tandiku nit ñi di di tekkaliko ak beru guddeeg bëccëg daana leen digal ne leen dee leen beew dee leen def seen bopp benn salaasama nee na seytaane bu fekkee ne yow kenn nga wala ñaar bu jéemee ci yéen pexe man ca dara waaye bu fekkee ne ñetti ngeen mën na leen yàlla yàlla mën naa dugal du man ci yéen dara kon nit ñi su fekkee ne dëgg dajewu leen caaxaan képp moo leen dajale doomu aadama yi bu leen dëgg boolewul caaxaan leen di boole bari na ci kuréel yoo xam ne dëgg moo leen boole ñuy ànd waaye bari na ci kuréel yoo xam ne dañuy jaayante ka jëwante ka xasante ba tax na moo loolu moo leen boole ba tax ñu ànd ndax kenn du wax sa morom dëgg mbooloo mu ànd nag ca kenn du wax sa morom dëgg moom mbooloo mooma yàlla nekkatu fa mbooloo bu àndee dañuy waxante dëgg ca bañ di jaayante kon moo wax moo tax mu ne bu fekkee ne dëgg boolewut am mbooloo caaxaan moo leen moo leen moo leen ñu teqale daal di waxaan ne bu fekkee tamit jaamu yàlla maanaam boolewula ñu doon benn seytaane moo leen ñu teqale kon jullit yi na leen jaamu yàlla boole ñu leen benn te seytaane kan ibliis am na juróomi doom ñii ne am na fukki doom doom yooyu lay def la jox mission ñu di ko doxal ci àdduna bi rek am na doom ju ñuy wax mu daxis zalbun batar awar mansuuj hadis daasim yooyu yëpp ay la ca kenn ku ci nekk yox na la mission yaa def ñii ci marché bi lañ nekk ñi ñooy indi xuloo bi ñii ñooy teqale borom kër ak soxnaam ñii nangam ak nangam ak nangam su nekkul benn nag doomi iblis yooyu saa su na ñi ngi fowe ngir bëgg yàq sunu dund yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك على الله بعزيز طويل لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا رشدا والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن معيسا لنا من شر شيء حسد يمنع سر من وسر عيني الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين